auzubillah bismillah na waldi yàlla seen ndongal yi ndongal yi Cheikh Souleymane yàggali daanaka lanu tàmbale woon ci ah, mbindum seriñ bi ci tasawudu sixaar yi defoon nañu volume un bi mu ngi ci volume ah, deux bi waaw nga xam ne dañ koy def rek ay yu gàtt nga du gudd noonu Euh, nekkoon nañ ci tarjumaan ji tey nag ñoomoon mën yéene dugg ci ni ñuy wax mm, préface bi mu xaddamat mu doon lu mu jiital am na moom la sëriñ bi jiital balaa muy dugg ci bunt yeeg yooyu euh, tarjumaan di waxoon na xas dégg li muy jëriñ ni ñuy yóbbalu ndaw ñi la ni ñuy yóbbal ci àjjana yi nga xam ne moom i déeg am nga déegi moom euh, ñeenti déeg la déegi déegu ndox lem mm, sàngara ak meew waaw hmm. ah, dégg yooyu yëpp nag ci bisimilah rahmaani rahim lay génnee hmm, loolu xam naa beneen yoon bu ñu yàlla dimbale ba ñu jeexal téere bi danañ ci yegg si ah, muqaddamatun lii muy lu nu jiital hmm, yaa ayyuhal sibyaan yéen ndaw ñi laa tastayil bu leen soxloo anil xudaa lu dul jub eh, wastahilu da ngeen soxloo bil ulumi ci xam-xam daanaka ndaw moom li nga xam ne moo koy jëriñ leen rek la war a def yitteem mooy njub te bu jubee ba pare na cee na na na na na na fexe farlu am xam-xam xam-xam nag moom mooy eh, xam na ngay jaamoo yàlla loolu la moom soriwul mhm. moo tax mu ne yaayoo si bi yaan yéen ndaw ñi laata sey bu leen soxlawoo leen anin xuddaa lu dul njub mu ne wabil te ci xam-xam wastayloo tamit na ngeen ko soxlawoo kon njub ak xam-xam mu ne fastayloo na ngeen woo tamit bi xifsi ci mokkal li ngeen di jàng ngeen di ko mokkal wa ak di ko jàng di ko baamu di ko baamu mu ne wàcc ni boo na ngeen waytandiku majalisa saxaawa mooy jotaay way texe di jotaay way texeet mooy jotaay boo xam ne amul yàlla amul yonent bi amul sëñ Tuubaa waxuñu fa ci gaay yu baax yi mm, amul lu la fay jëriñ mm-hmm. moo tax mu ne fastayinu na soxloo bi xib si ci mokkal wa tilaa ak jàng parce que boo mokkalee da ngay jàng te li ngay jàng foo nga koy li ngay mokkal foo nga koy réviser sinon da nga koy fàtte ngay mel ne alxuraan rek moom boo ko bàyyee mu bàyyi la boo ko jàppee mu jàpp la hmm. mu ne wàccani boo na ngeen waytandiku ma jaali saa saxaawa jotaay wayte xeet yi mu ne wala simoo na ngeen kook man koo xam ni laa yasaalu du deñ abida di jaamu boromam abida di jaamu li rabbi ñeel boroomam mu ne kon xaayida dana leen wamat ilal daaw ci njub li tubaab di wax ni ah, nag nag ma won sa xarit mu wax la ka nga doon ah, loolu la rek da ngay jéem a xool eh, daanaka ci wàllu wërsëg da ngay xool ñi nga tane waaye ci yoonu yàlla da ngay xool ki la tane loolu mooy différence bi ci côté àdduna moom chaque fois da ngay xool yow li la yàlla defal nga xam ni kon am nga ñoo tane waaye ci yoonu yàlla moom dangay ngay di xool ki nga xam ne moo la tane moo tax mu ne walaazimu eh, eh, na ngeen saxoog wala ngeen takkoog man koo xam ne laa yesaalu du deñ xaa bi daal di jaamu li rab yi ñeel mu ne xaayi da kon de dana la womat ilal xudaaw jamono ci njubam googu mu ne ndax fa kullu man képp koo xam ne baa dara gaawantu na waxta si xari waxtu ndawam ilal xudaa jëm ci njub mu ne istaraha dana noppaliku waxta ki bari waxtu magam koo xam ne ndawam gi da cee gaawantu doon ku jub bu nekkee mag dana noppaliku jub rek moo am solo mm-hmm. waaye <clears throat> mu ne wamanta tadaaraka képp kuy dab dabal allazi la nga xam ne xat faata faatoon na ko minal laxaa ci ay neen ci ay foo ci ay caaxaan ak lu mënti doon wa amara te mu dundal waxtu ya al aw xaata waxtu ya te waxtu ya mu doon def caaxaan yé bu jotee rek mu dundal ko ci jaamu yàlla ak tuub ak rëccu ah daanaka sunu borom dana ko texe mm. mu ne wa man tadaraka képp day dab dawal la nga xam ne xat faata faatoon na ko minal laxaa ci ay neen wa amarate mu duna al awqaata waxtu ya bi taw ba tina suux ci tuub gu sell la tuub gu sell nag mooy tuub goo xam ne dootoo ci dellu si day mel ni nga teg sa tànk ci safara wala nga joggi ab rab mm, wala ab dëj xam nga doo ci tegaat sa tànk ndax xam nga boo kiyee dana la dana la jàpp waaw mm. mooy tuub gu sell la amul tuub naa ko di ko defaat malgré que ni yàlla kenn dafa nekk xafuru xafaar moom boo ko tooñee tamit ak nu bàkkaar gi toll tànk yaa ngi dund rek boo ko jéggalee boo ko jéggaloo mu jéggal la ko ndax yàlla day jéggale te amul lu mu dul jéggale